bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahimi maliki yowm ddin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain ihdina siraat almustaqim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 mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu lillahi wa rasulihi ak jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba ci bis bi ngeen woote jagleel ko Cheikh Ibrahima Fall allahu taala anhu dëgg la euh, Moustapha li nga wax dëgg la mës naa jóg jóge fii njaareem ñëw ba kawlax yandu fa ànd ak xale yi nga xam ne at mu jot bu ñu tëbaskee dañuy jóge luga ak tuubaa ak Ndakaaru di ñëw di ma nemmi su Kaolack mën naa wax ne gis gi ci jëmm mën naa wax ne daanaka su ma fàttewul weesuwul benn yoon waaye kàddoom ma mujj miin ko ci téléphone daaw ba ren ak ngan man la ma doon ñaan sax waaye waxtu wuñ ko jàppee rek ma amit téq-téq bi ci mujj bañ ko seetee dat bi dafa mujj tombeek tam xarit ma am ci programme ndakaaru ba fan yi mu ne ma sax de damaa am ndigal ci sëñ bi bisu Cheikh Ibra bu may def bu yàlla dogalee nga disponible mu tombe nga mën caa far teew benn yoon te man sax daanaka ñëw nemmik si ko ngir cofeel googu mooy li ma indi woon waaye ñëwuma woon ngir ñëw ñëw waxtaan si ndax xaritoo ci yàlla ak bëggante ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na istaksiru min al ixwaani fa inna li kulli muminin shafaa yowma alqiyaamati na ngeen fexe bari la ñu ngeen xaritool ci yàlla ndax aji gëm yàlla ju nekk yàlla may na ko am tinu ëllëg te kon xamul ku la ëpp daraja ëllëg ak koo xam ne say bàkkaar dana màgg ci kanamam yàlla may ko kàttanu man laa xettali bindee fi ëllëg dañuy xett lent yonante yi bu ñu rammoo ba noppi wàlli yu ramm nit dana nekk ca àjjana ci étage si àjjana sapp tiim safara benn jëm yuuxu ci biir safara di ko yow de mosoon ngaa jaar sama kër bëgg a jàpp ma may la ndox nga jàpp bëggoon ngaa naan ma may la nga naan saw dàll sax waddoon na ma faral la ko loola ma la defoon xanaa doo ñaan yàlla tey mu génnee ma ci kërug texee di gi mu ne ah kay sallallahu moo ko wax de waa ji wàññi ko suñ borom ne ko lu xew mu ne ko àjjana neexatul ci man am na ko ma mosoon a defal jekk te ma nga sawara suñ borom ne ne ko boo ko bëggee tinu rek ma may la nga tinu ko de xam dañ koy may mu wàcc ñëw ñaan suñ borom malaayika yi génne ko mu jàpp ci loxoom tàbbi àjjana loolu nag soo ko xamee Cheikh Ahmadou Bamba li mu wax ci masaalikul jinaan bi nee na laa tasdari al abda li qubxil malbasi ma tahaddudi wa kasri wa kasri danasi nee na bul xeeb jëmm ji mukk mukk ngir cor gu ñagas bul xeeb jëmm ji mukk ngir yaram wu tilim bul xeeb jëmm ji mukk ngir kawar gu cuxur fa rubba si taxaddudin xadim tala nuuran wa sirran min ilahin xat ala bari yaa na waajoo xam ne yaram wa dafa ñagas bu jéggee sam ndox doo ko naan kawar kawar ga jaxasoo tànk yi weex tal te nee na ma nga fees dell ak leer ak mbuutum suñ borom loolu ku ko xam da gis ne daanaka hadis bi sallallahu alayhi doon sallam doon misaale uyisul moom la Cheikh Ahmadou Bamba way rubba ashasha aghbara zi timrayni laa la law law aqsama ala llaahi la abarra sallallahu alayhi wa sallam ne bari yaa na waaju kawar ga cuxur yaram wi fagg tilim mu sol ñaari sagar sagaru mbubba sagaru tubéy te nee na law sama bu dog woon rek ala llaahi ci yàlla la abarrahu yàlla fekk ko ca lu mu dog rek yàlla fekk ko ca bind kon ñooñu suñ borom daf leen nëbb ci soo ko xamee nag doo xeeb dara doo xeeb kenn loolu moo sabab rawatina ba nga ma waxee ne sëñ Sam mbay moo tax ma sopp la ma ne la danaa la xamal loo xamutoon noona ma ne ma ne ko mbaa xam nga ne Cheikh Ibrahima moom nga wax moo ma gën a jege ci sëñ Sam nga ne ma nu mu demee ma ne la Cheikh Sow mi ma jur ak sëñ Saliou Dieng mi nijaayu sëñ Mourou Aminta ñoom ñaar dong ñoo ñoroon sàmmal Cheikh Ibrahima. guerre bii bi nga xam dañuy laaj yoonu yoonu murid ay soldar daaru salaam ful gii sama bàyyi sama mennum bàyyi Cheikh saw moo jóge ci njabootu Cheikh Ibrahima ànd ak sëñ Fallou Fall ñu dem ca guerre ci guerre ba sama bàyyi Cheikh Sow dellu na carte combattant bis boo ñëwee seet si ma wan la carte ancien combattant bi ak ordre de mérite yëpp mi ngi ak man ma garde ba tey daaru tëni moom dong lañ fa solo ci kër Cheikh Ibrahima mu demoon ca guerre ba muy dem sëñ Mat Jaw paxa moo ko defal ñaan moo ko laaj ab gàtt mu ñëw mu defal ko mu ne ko lu feet yi bari bari bul ñibbisi boo ñibbisi rek boo demee dootoo dellu si waat waaye boo ñibbisiwul yàgg yàgg da nga ñëw sëñ ma Jaw Paxa mi moo ko defaloon loolu kon nag loolu laa la doon misaal sax ba di la wax ne buñ masaana dem mundóob de di góobi tooli ceeb bi sëñ Fallou Bakke naa dangaa xaw a disee dégg ni ma ko waxe sëñ yu Niang moom lañ ma tuddee mook sama baay Cheikh Ibra ñoo doon sàmmal Cheikh Ibra sëñ Saliou Niang men sëñ Saliou Niang moomu gis nga kii kii ci sama ginnaaw nii ñoo bokk turandoo ki jur baayam ak ki jur sama baay Abdoulaye Sow bu sëñ Tuubaa wàccee Cheikh Ibra yebal ko mu dem Ndar ci la mu ko santoon ci sëñ As weer yooyu ma fa def jamono yi Cheikh Ibra dafa fekk gànjool ñeenti xaad yi li ñuy wax kade yu wër gànjool Cheikh Ibra bind leen ñeenti leetar ku ñuy wax Mayaara Jum ak demb Yëmmu Jóob ak Ibrahima Sogg ca Paal ak Sëriñ ma faal ñang ca Kabdu booba man sama maam Cerno Yoro Sow sëriñu Tukulóor la bu jóge woon Fuuta di jaabante ndar ak kabdu googu bu noor jotee mu dem noori ndar bu nawet jotee mun nawet ñëw nawet kabdu bi Cheikh Abdou Fall moomu di wuy ji Cheikh Ibra ca ndar nag ànd ak sama maam Ablaye Sow bañ demee Cheikh Ibra yebal leen ci sëñ Tuubaa booba sëñ Tuubaa ma nga Mbàkke Baari di waaj a dem ci géej gi bañ demee Cheikh sëñ Tuubaa ne leen dénkaan naa leen Cheikh Ibra loolu moo leen delloo si waat ci Cheikh Ibra maroon bi ñuy nekk ci daara ji ni ma la wax bu ñu masaan di góobi tooli ceeb bi sëñ Fallu Mbakke ca Mundóob de sëñ Ablaye Fall Ndarum booba mooy xalifa mooy nekk jëwriñ ju mag gi mooy nekk ca tabax ya ñu tabax nee nga xam ne boo ko jaar ci bunti sarale yi ci dex gi dex gu neex googu nga xam ne moo jógee ndar wuti gànnaar sëñ Modou Aminta moo daan nekk jëwriñu ñaareel ji nga xam ne moom moo ñuy jiite ci tool bu xëyee ab sarbet lay kaalowoo géwél bu ñu wax jimmi mbay topp ci gàddu génnu xiin bu demee ci canal bi mooy samp ab sol bu rëy ku yéex a xëy si mbaa nga naajee xëy si man mi mas na maa naajee xëy si benn bis di jaaru sëñ Ablaye Fall Ndar xam nga dafa demoon ca kaw te loxo yi jib ba muy seet ku xëy ba ma naan tëll rek ba ma ba ma talaata damaa defee nu ci botoxi ba daanaka daw naa lu sori ngir ngir naajee xëy loolu ca mundóob dëggee loolu mel noonu laa laa la doon misaal ba ngay tudd sañ Saam ma ne la nag bu ñu waxtaanoon dëgg dëgg naa la xamal ne Cheikh a gën a jege sax ci sëñ Saam sëñ Saam moom yàlla mujj mujj boole ñi kon xam naa <coughs> kàddu yi comme ci wàllu soññaate rek ngeen bëgg ñu jëme ko ci xam naa ne kàddu yu yu tënk lay doon yu gàtt ndax yitte yi bari na lool xam nga doomu aadama yi boo leen seetee ñett lañu amuñu ñeenteel bakkan yi it ñetti xeeti bakkan lañ amuñu ñeenteel sëriñ si tamit boo leen seetee ñetti xeeti sëriñ lañ amuñu ñeenteel loolu foog naa kuy baxsu ci daqaa'iqul islaam da gis lu bare bari ci misaalum li ma la wax doomu aadama yi dañ ne kii alkarim la kii alxakim la kii allaim la alkarim mooy ki nga am ne soxlawul ku ko yar soxlawul ku ko tarbiya buy judd judd waale na ci melokaan wu ko may ngërëmal yàlla du ko wàcc ba mu ba muy làq ridwanullahi ñooñu nag ci yonent yi dong lañu leen mën a amee ak ci kumalul awliyaa yi Muhammad sallallahu alayhi wa xam nga moom moo ne addabani rabbi fa ahsan hadis boobu am na ulamaul jarh wa taadil yu ci wax ay wax waaye terewul hadis la rek addabani rabbi fa ahsana taadibi suñ borom mooy ki ma yar rafetal sama yar kooku xam nga ne soxlawul kenn ku ko defar ëllëg soxlawul kenn ku ko yar ñooñu nag ñooy defaree ëllëg ñooñu ñooy ñay defaree ëllëg. ñooñu ñoo taxoon alquran wax ne ulaayika lazina hadallaahu fa bi hudaahu muqtadi ñoo ñooñu nekk ci kanam ñu di leen roy su ma la nee ci kummalul aw liyaay nga seet ak Cheikh Ahmadou Bamba da nga gis ne ci kuréel booba nga xam ne bi ñuy ñëw soxla wu wuñ ku leen tarbiya soxla ku leen defar ay defarekat la ñuy doon gis nga moom lu ko sëñ Moussa Ka wax ba mu naan ko karaamaati junne yi dooki booti tayfoor ci sag raw nga ko làqoon ak raw mooy ak ngone ma imaamu Junnaydu xam nga ko Cheikhu Taifatu Suufi ak Tayfoor Abu Yusir mu ne ko karaamaati Junnaydu ki booti Tayfoor ci saga raw nga ko làqoon te taxtu laa foor mooy xam ma nga jëm àggagoo fa xam nga loolu moo dëppoog yaa xëy na maaxi maha junaay maal misaay nga ne kan mu ne la waxta si baay musta jaar ci kaf wala wóorental ca waxtu ak ndawam nee na ci la ko suñ borom defar jox ko melokaan wa kuréelu ñaareel bi ñoom li ñuy tuddee alkarim alhakim alxakim mooy kan mooy ki nga xam ne ku ko defar mu defaru waaye ku ko bàyyi mu sànku ñooñu ñoo taxoon alquran wax wa zakir fa inna mi nii na ñooñu ñooy ñi nga xam ne ku leen defar mën nañoo defaru bay defar waaye bu ñu juddoo ñu bërgël leen tamit dañuy mel ne waa seen waa jamono rek afa xasibtuma annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun kuréelu ñetteel bi ñoom la ñuy tuddee alla eem ñooñu ñoom ñooy waa càmmooy ñooy ñi nga xam ne loo wax ci noppam ndeyjoor rek mu génn ca noppam càmmooy jàll loo leen wax tey bu subaa nga waxaat leen ko bu ginnaaw subaa nga waxaat leen ko duñ jàpp dara sawaa sawaun alayhim ansartum am la lam tunsiru laa yuminuuna xatama allahu ala xulubi wa ala sami wa ala absarihim gishawat wa lahum asabun asimun ñooñu ñooy nit yi gaaf yi ñooñu nga xam ne daanaka dañuy mel ne ay radd mare yooyu dañuy mel na ay typhon seen dund gépp du ñu tabax te dañuy faagaagal rek loolu xam ngeen ne bare na ci ci àdduna bi moo la waxee loolu bakkan yi ñett lañ a Cheikh Ahmadou Bamba moo ko wax inna nufuusa naasi fi nqisaami atat salaasatan min al aqsaami nafsun takunu xurratan salima min kulli aybin bil huda maaluma wa baxdaha karimatun la dal ilaa kaarihatan li maa yajuru ayballah wa baxdaha xasiisatun tawajjahat li maa yadrubil huda man tabahat ba am àgg ci xuratuwaan sup li jamil anbiya alimu aska salaamay rabbi ila axirihi ila axirihi sëñ tubaab mu ne bakkani nit ñi ñett lañ amul ñeenteel dafa am bakkan boo xam ne daf bakkan bu gore la bakkan boo xam ne yàllaa ko def muy bakkan bu gore bakkan bu gor am na mucc ci bépp ayib fu mu toll rek ne coow ci njub mi bakkanu ñaareel ba mooy bakkan bi tedd wa bada karimatun lil ila la dal ila karihatan li maa yujuru nga xam ne fu mu toll day sib lu koy xëcc xëcc jëme ko ci ayib bi aji caaxaan bakkanu ñetteel bi nee na mooy bakkan bi tilim bakkan bi suufe xasi sa na tawaj nga xam ne lu koy lor rek ci lay jublu bakkan bu gore bi mooy bakkanu kan Cheikh Ahmadou Bamba nee bakkan bu gore mooy bakkan bu yonant yi xurratu an sub li jamil anbiya bakkanu ñaareel ba mooy bakkanu wàlli yi ak gaayu mag yi bakkanub alkarim bi lu waral moom dañ koy defar dañ koy xëcc mu soog a defaru xam nga lu ko waral bu alxuraan ne inna laaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannata lu waral lool inna laaha ashtara minal mu'minina anfusahum yàlla jënd na ci way gëm yi seen bakkan lu waral loolu gëm yàlla terewut a xam leneen tere a mos leneen da gëm yàlla xam nga yàlla waaye xam nga leneen nag mos nga yàlla waaye mos nga leneen tamit suñ borom nela boo bàyyee lee nga mos te du man lee nga xam te du man boo ko bàyyee jaayante ko man ma jënd sa bakkan bi bu ma jëndee sa bakkan damay mujj jóge la jële la ci darajay murit yóbbu la ci darajay muraat murit al muridu saadix mooy kan bi nga toogee ba xam ne fi nga nekk wóorul bis bu nekk nga jàng alxuraan gis yàlla di santaane loo xam ne wóor na la ne mënoo ko bis bu nekk muy tere loo ne wóor leen mënoo ko bàyyi te dee ngi ñëw de te leer naññal bu la dee fekkee fii du baax ngay déglu ba dégg ne diw sàngam ca dëkk sàngam defaru na bay defare nga daal di wacci kër wacci njaboot wacci alal dem di seeti sëriñ boobu keroog bi nga génnee sa kër wuti sëriñ boobu yaa ngi taxaw teg sa tànk ci daraja murit saadiq boo demee ba jaayante al iraada saadiq ba tey yaa ngi ci waaye muraat moo gën a foor murit muraat mooy ki dem ba àgg yemul ci jaayante dëggu ci jaayante bi waaye bu dee wax dëgg lay wax bu dee xoolee dëgg koy tax di xool yéeneem day dëggu asidqu fil amal jëfam day dëggu wa sidqu fil iraada yéen maanaam nameelam day dëggu côté boo laal fekk ku mu dëggu kooku moo toll ci maqaamu mu kooku moo jóge ci maqaamam mushahada maqaamam dem ci maqaamam mushahada moo waral inna laa ashtara minal mu'miniina moo dëkkoog ba dëppoog bakkan boobu ak Cheikh Ahmadou Bamba wax bakkanu ñetteel bi mooy bakkan bi gàkk bi nduxum bi tilim du wamatu mukk mukk ci lu jëm suñu borom azza wa noonu la ñëwee tamit ci sëriñ si sëriñ si ñett lañ dafa am sëriñ boo xam ne bu weesoo jàngale ak jàngale wàcc na àndam jàng jàngale waaye sëriñub jàngale jàngale kat jàng jàngale yombul dafa am jëmm ju bind lettre Cheikh Amadou Bamba wala mu wax ko ko mu musaafahatan yow sëriñ bi dama lay laaj ndax nit mën naa amul sëriñ ba yàgg mu bàyyi ko fa wuti beneen sëriñ sëriñ Tuubaa ko laaj nga laaj bu laajub laaj sa laaj bi dafa laaj dafa am beneen laaj bu mu laaj dañ lay njëkka a tontu ca lam laaj soog laa tontu ci sa laaj bi mu ne ko bala ngay laaj amub sëriñ ba yàgg sañ nga fa bàyyi wuti beneen sëriñ dañ lay njëkka a leeralal ñaata sëriñ am sëriñ bu njëkk bi mooy cheikhu taalim comme professeur buy jàngale am na ñetti condition na am xam-xam bu leer nañ bu tege ci alxuraan ak sunna bari yaa na koy dégg muy wax alxuraan sunna alxuraan sunna fekk moom déggul alxuraan déggul sunna moo tax damay faral di wax ne sëriñ bi diw sàngam tafsir na kaamil ba bis sàngam la ñuy tëj kaamil bi sëñ bi wax ju wax ju doy waar a ngi wax ju wóor a dee ngi noonu alxuraan boo tàmbalee alif laam mim dong nga romb ko fa xamoo lu muy tekk nga jàll kaaxaa yaa ayin saat nga ne ay araf la xaamim ayin siin xaaf nga ne ay araf jekki-jekki na firi naa kaamil ba mu àgg ñëw leen fekk si bisub tëj te est-ce que da firi kaamil firi woo dara da nga naan firi naa ci kaamil bi li ma xam bàyyi fi li ma xamul muy xaar ña ko xam ëllëg da naan wax naa ci kaamil bi li ma xam maa ngi tëj bis bi nga xam ne ci lay tëj wax li ma xamoon alxuraan kenn mënu koo firi ba fi ñu toll nii ba mu àgg dafa am loo ca mën a firi am loo ci mënta firi dama laa jëlal xaraf yooyu waaye am na ci aaya yoo xam ne kenn du la ko firi lu dul suuf yànke yi loolu mel na tafsiru Cheikh Muhiddin Ibnul Arabi am na aaya yoo xam ne dañ la cay wax a wax a wax wax la ci fukki wax ak ñaar dañ ko fi mujj ne tekk ne la seetal bu yow yaay seet boo ciy tànn rek wala kooku wax la ba mu ca gën a gën a jàpp ne wér na am xam-xam bu leer bu tekk ci alxuraan ak sunna na nekk fasiix nekk baliix du la wax mukk nga jóge fa di sikk sàkkalam la doon lim lay wax day leer naññ ci sa bopp ñetteel bi day am ragal yàlla gu toll ne lu mu xamul ne la xawma ko ba dem laajee ko ko xam boobu mujj nag mooy bi jafe dem ba nga am ne dindi nga sa bopp ak rëy bu la nit laajoon loo xamul léegi nga ne ko ah, xaw ma ko demal laaju ko ko ko xam boobu mooy bi gën a jafe nag ñett yi mooy daje ci nikki mu soog a taxaw ci dara jëm sëriñ bu war a jàngale jàngale diine jàng nag ñaar la bépp xam-xam boo xam ne ajuwul ci diine ku la neex mën koo jàng ci moom waaye xam-xamu diine moom dañ ne la bul ko jàng ci lu dul ku ragal yàlla inna haazal ilma diinun fan fansuroo aman taaxusoona anhu bu dee xam-xamu science médecine mathématique géologie biologie science physique banam jeex kooku moo tolloog alxikmatu daalatul muumini yaltaqituha anna wajadaha sallallahu alayhi wasallam nee na sagesse alalu julli la fu mu ko gis sañ na ko for boobu xam-xam moo waa bu dee naan sàngara sax bàyyil ko fa sàngaraasam te ñëw mu jàngal la xam-xam boobu nga jël xam-xam te bàyyil ko fa sàngaraam samay naan waaye bu dee xam-xamu diine moom tawxiid fiq tasawuf nee nañ ku ragalul yàlla bu mu la ko jox ndax ku la jàngal li ci gën a bari rek wala lay jikko sëriñu ñaareel bi Cheikh Ahmadou Bamba mu ne mooy cheikhu tarbiya am na ñetti sart am na ñetti condition bi mu jara di ruya boo agsee bu la nee jàkk dong rek xam ban feebaru xol nga yor da wala da ngay ngissal wala da ngaa ñàkk yërmande ci bindee fi yaa axil xiibata wa riyaama al ujbi wal asada wal kibra daa wa adama rahmatin lil ak al ujbu yëm sa bopp waxu ba rifatin alal iqraani ak bëgg a kawe ci sag maas xam nga yooyu yëpp ay jàngoro yooyu yëpp jàngoro la yoo xam ne bu nekkee ci nit ki dana ko tënk ba du dugg ci xadaratu rabbil bari gis ngeen Cheikh Ahmadou Bamba ni mu daan tarbiya nit daan na ñëw. mu ne la jàkk ba yàgg mu sant la nga dëkke koor xam nga lu ko waral dafa laa ne jàkk ba xam ne dangaa ngaa foqale da ngaa bëgg lekk la santee nga dëkke koor bis boo fàttee lekk ak naan rek neex a àggali sa borom keneen ñëw du ko sant loolu sant ko leneen daal di koy sant mu tëju di bindi kaamil rek kooku xam nga lu mu gis daa gis ni daa bëgg di tiitaru rek ay mu faaxaraat di dox rek ñu koy woo mu tëj la balaa àdduna fàttee kenn tuddatu la bu jàngoro jooju dañee ci yow nga neex a yóbbu ci yàlla nit ñëw mu yabal la ca toolee ngay gor ak a yet ñaare da lay xool xam ne dangaa ngaa dangaa ak da ngaa ragal coono bis boo demee ba wala nga ñëw mu gis ne dangaa rëy mu gàll lay mbuus ne la demal yalwaane nga dem ba ca dëkk ba nga dëkkoon ci pénc ma di yalwaan xam nga rëyatoo léegi dëkk bi nga dëkkoon daal fi sol yére yu rafet tey nga sol daal la wu dagg wala tànkum neen gàddu su mbuus mus di yalwaan sëñ bi kooku ndax rëyatin noonu la lay def jàngoro ju nekk imaamul Xasaali nee na jàngoro ju nekk contraire ba moo koy fa moo koy faj. seyxu tarbiya bu la nee jàkk day xam ban feebaru xol nga yor mu xam fu mu lay jaar ba dindi ko waaye xam nu mu lay ximyaa nu mu lay protéger ba jàngoro ju du ñëwaat ñaar <laughs> ñetteelu sëriñ si kooku mooy sëriñu sëriñ si mooy seyxu tarqiya kooku moom bu seytaane nekkoon ci sa xel waaye nga xalaat àdduna wala nga sàggat boo doon dox ba ne tëll ci moom rek boo ko nee jàkk rek dal di fàtte lu dul yàlla yàlla doo ngay teew ci sa xel fii yaa ngi koy gis ndax mi aw melokaanu boppam moo tax dañ ne man laa yan fawka laxsuhu laa yan fawka lafsuhu koo xam ne ne jàkk jëmmam du la jariñ dara ay kàddoom du la jariñ dara jëmmi waa ji moo la war a njëkk a waar bala laa ay kàddoom di waar Cheikh Amadou Bamba noonu la meloon nee nañ daan nag toll jëmm yoo xam ne boo ñëwee ne ko jàkk doo ko ñë boo ko xoolee doo ko ñemee xoolaat boo koy xool rek da ngay sëgg ndax raglu gum raglu ndax diggante diggante laay ak laay niñ koy awantee rek léeg-léeg nga fekk mu leer nañ ñi mel ne nga xam ne da ngay randu si doo ko bëgg a sori xam ngeen ni àgg ci tamkiin tere wute am taqallub a taqallub fil wusul a taqallub fi tamkin nit dana jaar ci juróom-ñeenti maqamatul yaqin def ñetti xeeti fanaaw al fanaaw fil afaali wal fanaaw fi sifaati wal fanaaw fi zaati ba ñëw ci tanazul terewul léeg-léeg muy def taqallub ndax loolu lu ñuy donn lu muy donn ci muhammad alayhi salaatu wasalaam wala awliya adillatu tasihi fii diinihi wa sidqihi sahihi seyxu tarqiya boobu moo njëkk ci moom ñaareel bi bu dee wax ay kàddoom day buur loo sa yitte di ko yóbbu ci suñ borom ñetteel bi mooy bat barab bu mu nekkul yàlla wuutu ko fa fu ma tuubaal laa ko doon waxee bërk bii xaw ma may leen dafa bari yoo xam ne soo déggee ku ko wax li muy tekki sëriñ bi daa jàng benn boor rek du ma wax ne yërul lu bari waaye dafa ñetti xeeti xam-xam yi mu war a jàng moom la jàng ndoowut tasawuf boo ko dul jàng dana am ay alxuraan yoom xam ne doo ko dégg mukk am na addis yoo ko dégg mukk ndax kenn ku nekk fànn ga ngay dund dafa am ci lislaam walla goo xam ne foofa rek lay waxe bari yaa na lu Cheikh Amadou Bamba wax kañ la woon ci màggalu Tuubaa gi bi télé yi fi ñu te télé yi doon ñu interviewé ci kër Sëñ Tuubaa gi fa laa ko waxe woon bi may leeral wàllu gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga da ngay ko jàng fi ba indi ay diplôme ci réew mii nga gis ko télé mu ne la ko la wax ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam day gént sëñ bi waa ji ne la gis naa nga ne ko gisoo sëñ bi est-ce que loolu ñeme yàlla waa ji ne la gis naa nga ne ko gisoo bala nga doon weddi kay yow day fekk nga gis ba noppi waaye ba noppi ne waa ji gisoo gisuma ko kon keneen gisu ko xawuma ko waaye keneen xamu ko est que loolu maandu ko maandu dana ko wax ñi wax na gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu fi jógee ba tey ñooñu di ko wax Abdullah ibnu Abbas sallallahu alayhi wasallam moo ko tudde fóoree xeet bi moo teg ñaari loxoom ci mbaggam ne allahuma faqihu fi diini waa li mu taawi la yow yàlla yàlla na nga ko déggloo diine te xamal ko taawi la moo waral ñiy jàng te téere tafsirul quran yi fu wax ji bare buñ ne ibnu Abbas neen rek ñu sànni waxi ñëpp topp waxam ndax yàlla koo ko jagleel ñiy gëstu ci daqaar daqaa'iqul quraan xam nañ li ma wax yow barke démb rek xam na xam na ñu ngi ciy wax bi ma lay laaj waawu samaaniya waaw goo xam ne foo alxuraan di limi juróom-ñetti mbir rek lay ñëw du ñëw ci beneen place te loolu du jeex du xaaj ay junniy junni mbir la. Ibn Abbas gént gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bëreet ñëw wax ko soxna si yonent bi soxna Maymuna kooku wét wékki seetub yonent bi. bi mu ko ko ne bi ko joxee waa ji ne jàkk bi mu Ibnu Abbas bi mu xoolee seetu bi gisul boppam jëmmi yonent bi lay gis est que loolu xaj na ci xel sëñ bi loolu xaj na ci xel loolu xajul ci xel xoolal suuratu baqara lu waral alxuraan tudde ko suuratul baqara banu Israayil la benn waay rey nijaayam ndax da koo ñaan doomum jigéen mu bañ te nijaay ji bari alal lool te benn jigéen bi la am mu ñaan ko ko mu ne ko yow bandi nga du ma la may sa doom ci doo jàng doo topp njàngal njàngale Moussa mu xaar ba nijaay ji génn rek mu kar ko ci guddi gi rek xoj ko teye put gi ba mu faatu mu yónn ko dem sànni ko ci beneen koñ xëy suba nag dem attaqué ñu naan yéen a sama nijaay ndax seen koñ lañ ko fekk. banu Israël ne Moussa dimbali ñu leeralal mbir mi Moussa ne yàlla nee na ngeen rey nag inna laa yaamurukum an tasbahu baqaratan gars yi ne ko waaye Moussa da ñuy saboote atattaxisuna huzuwan mu ne leen auzu billahi an akuna minal na kon nga xam ne saboteur sayeteur foo ko fekk jaahil an akuna minal jaahiliina xaalu lanaa rabbaka yubayyin lanaa maa hiya waa laajal yàlla mu leeral ñu nag wi nu mel ban façon nag la xaal innahu yaqulu baqaratun laa faaridun wala bikrun awaanun bayna zalik fa fa'alu ma tuumaruuna nag la woo xam ne daal màggatul waaye doo ab jànq ab jànq mi ci diggante bi def leen liñ leen digal udu lanaa rabbaka yubayyin lanaa maa lawnuhaa nañu yàlla wax ban couleur la mun lan innahaa baqaratun faaqun lawnuhaa tasuru naas dafa dafa zone zone bu ticc rafet lool boo ko xoolee du bëgg du ñu naan ko ba tey ñaanal yàlla mu wax ñu nag wi nu mu mel. yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wala tasqil xars musallamatun la chiyata fiha xaalul aana jiita bil xaq gis nga incha allah jooju ñuy wax dong moo tax yàlla dimbali leen buñ ko ci boole wutoon danañ wax junni yoon mu di leen réeral rek ah way xataltum nafsan fa daaratu fiha wala muxriju ma kuntum taktumoon Moussa ne yàlla nee na ngeen dagg ci ndawalu nag wi ñu dagg ci ndawalu nag wi dem ba ci bàmmeelu samoon ca néew ba faatu ñu jël ndawal gi dóor ci kaw néew bi néer bi néew bi dekki Moussa ne ko ku la rey mu ne sama jarbaat bee moo ma rey daal di tëddaat sëñ bi ki jël ndawalug nag ñu dóor ko ci néew mu jóg wax yàlla ma def loolu yàlla mu ndax lott na jël rasulaay di ko won sëñ tubaab mi bis mu ne ma naan rasulaay nee na ma yàlla yi démb du yàlla yi tey yàlla ma mënoon loolu ndax lott na ci lii Ibrahima xalilullaah bi mu ne suñ borom rabbi arinii kayfa tuhyil mawtaa xaal awalam tuumin yow yàlla wan ma nooy dekkale ku dee. waaye suñ borom mooy doy waar xoolal fa mu waxee fi mu ko tontu rek ne ko waaye dangaa gëmul sëñ bi xoolal koy dem bay laaj nu ñuy dekkale ñu ñu ñu nërmeel la ba indi la ci war laa sikki sàkkal yow gëm nga wala gëmu xam nga xel wu rëy lay dawee foofu moom koy fu mu bokkaate ci daayiratul iman rek mu ne ko bala walakin li yat ma inna bi ah kay gëm naa de waaye damaa bëgg li ma gëm sama bët tege ci gis nga yonante yi seen mbir damaa bëgg sama bët tege ci sama xel dal mu ne ko faqus arbaatan min at-tayri fasurhunna ilayka summa j'al ala kulli jabalin minhunna juz'an wax la man na laa jaar jëlal ñeenti njanaaw nga rey leen jaxaseen laaf yeek tànk yeeg dunq yi ba deret yeeg lépp def pat ñeenti doj yi nga samfee samfee samfee samfee nga woo leen yaa subhaanallah Ibrahima woo leen picc yi laaf naaw dal fee dunq naaw dal fee mu seen rek nit ñuy naaw fër fër taf taf taf benn bu ci nekk daw te Ibrahima a ngi tëye ñeenti bopp yi benn bu ci nekk bu dawee ba jub Ibrahima Ibrahima bu la tàggal tàllalee bopp bu dul sa bopp nga deltu ginnaaw mu tàllal sa bopp nga ne ci cap di dundaat waaye ma lay laaj est-ce que Ibrahima la mu doon laaj dëgg-dëgg woon nañ ko <laughs> wanuñu ko secret sirrul xadri la secret maanaam yàlla doo nga ko yoral boppam moom sëñ bi ay laafeke ndawal guy naaw rek lañ ko won nag wanuñ ko secret bay dekkal waaw ma lay laaj ka defoon loolu ndax lott na ci woon yonanti bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba fi mu naan Rasulullah nee na ma Usayru aw ka lesi marra ala qaryatin wa hiya xaawiyatun ala urushiha Usayru fekk na buxtu nasara faagaagal Ursalem mun ne waa dëkk bi ku ko mën a dekkalaat suñ borom ne ko yow da nga ci doy seere nelaw loo ko téeméeri at ca montagne ma bi mu yeewoo fekk rese saago rese ba mu yoroon rese bi yàquwul ñu ne ko waaw lu toll nan nga fi sax mu ne ah xanaa benn fan wala quelque temps rek laa fi def suñ borom ne ko xoolal sa mbaam ma mu xool mbaam ma der sax desatoo yàq ya seey na ba des tuuti daanaka wóom ya ak ak ak wëq ya ñoo fa des ah mu ne kon man kat nekk nelawuma benn bis nelawuma mi fan mbaam mu dee der waag lépp dem ba ba nga xam ne ruusiti bañ ak ay wëq ak i wóom a fi des suñ borom ne ko suñ borom ne ko nelaw nga téeméeri at. fanzur ila taamika wa sharabika lam yatasanna ndox mi ngay naan foroxul resee bi nga doon lor ak fur yu yàquwul waaye mbaam mi moom mu xool mbaam mi si dir yi di daw di wadd ci kaw yax yi yax yi di roofaloo muy xool ak bëtam der bi ñëw ba mbaam mi ne bëreet ngaax hmm. mu ne ah alamu anna laa la léegi xam naa ne yàlla mën na lu ne waaye sëñ bi yàlla ma defoon lool ndax lott na di wan rasul laay gaa yi ko jege ci baatin way suñ borom moom lott na ci ndax ñiy weddi sëñ bi ñi ngi seetantal alxuraan ji ñuy jàng kon nag <laughs> loolu sax junj la rek ci biñ la waxee Seexu Tarxiya ki nga xam ne boo ko nee jàkk mu fàttali la yàlla bu dee wax ay kàddoom da lay buur loo buurloo jëmale ci suñ borom waaye ñetteel mooy barab bu mu nekkul yàlla moo ko fi fuutu wuutu gis nga te wax jii ma la wax nii léegi du suñ tubaab moo ko njëkk a wax. abdul wahab sahraani wax na ko ci égypte gi abol abasil mursi àgg na ci nee su ma xefoon xippi mënatumaa gis yonent bi xef xippi mënumaa gis àjjana ak la fa nekk xef xippi mënumaa gis àll way suñ borom jaag la ca binde nee na su ma ko defoon benn benn heure bu ma demoon mënatuma gis kon ma jàpp ne bokkatuma ci lislaam nekkatuma jullit am na ko wax lii ba jóge fi bi sëñ Tuubaa daataan ñëw di wax lii xoolal sëñ bi loo xam ne nag ku ko mos wax wax wax lu wax lu nit ñi xamul sëñ bi boo ko mosagul noppil rek noppil te ñaan yàlla mosal la ko bon la ko rek loolu tomb boobu mu la mujj wax Cheikh Abdou Khadir Jeylaani wax na ko ci alfuyudaatu rabbaniya Amadou Badawi di Cheikh Amadou Fadal Mbacke tudde kenn ci doomam wax na ko Cheikh Amadou Badawi àgg na ci nee na sama sama taalibe foo nekk ci an lu mu sori solu bu tiitee woo ma danaa la fa fekk Cheikh Abdou Khadir Jeylaani wax na ko ci alfuyudaatu rabbaniya ci jamono yooyu dafa am taalibe bu jógee Saalum di fekk si sëñ Tubaa ci njaareem gii boobu réew mi bari na ay gaynde ak bukki de melagutoon nii Aboubacar Diouf la tudd am na téere bu tudd alminahul miskiya mi ngi jaay ci jaaykati téere yi yéen ñi jombul ci am na ñu ko liir gis ngeen xisa bi Aboubacar Diouf day siyaar yi Cheikh Ahmadou Bamba fii ci njaareem di dox ba ci digg àll bi rek dégg yax yi fudd mu ne gees fekk gaynde gu xiif bu yàgg tëdd di ba xaar fàdd Aboubacar Diouf yuuxu ba fa baatam yam yaa Cheikh al na ko lox bi muy wax ñetti yoon rek dégg lu nan fiif bi mu agsee bi mu ne tër gaynde gi gaynde gi dafa daanu di wéqu deret ji sotti nee na li dóor gaynde gi cosati na sama mbagg mi ba mënatumaa yëkkati sama loxo bi nee na ci si ma dégg kàddu gi naan ma duunaka kaana yuridu bi ka xat lan fa xuti la ma ngoog daf laa bëggoon rey reyal nañ la ko gisul mbol de gisul kiy wax waaye nag gars yi daanu na mbolde bi laal na mbaggam mii rek ba mënatu koo yëkkati rek loolu mooy seyxu tarqiya boo tiitoon sa xel dem ci moom boo ko tuddee barab ba mu nekkul yàlla ñëw wute ko xam nga lu waral lool sëriñ bi mat sëriñ sëriñ bi boo xamoon ne amul yàlla nga bàyyi ko fi am déet dangaa gëm ne am na yàlla xam na yàlla mën na ci yàlla loom sëriñ bi kooku boo ko joxee sa bopp yàlla nga jox sa bopp ah? fii lu courant nag lu mu gudd gudd ndegam ma nga jàpp sëñ bi ca ca ca ca kii ba ca contour ba sëñ bi lu mu sori sori sëñ bi moytul moom fil bu gàtt bi un mètre ba ba nekk quarante mètre jëm ak ba nekk un kilomètre boo boolee ñaari cos ya tey rek danga gis mbir nga xam nga misaal mi ma la jox sëriñ bi kon damaa foog ne daal euh, ni ma la waxoon lu toll nii sax jàpp mu woon ne euh, danaa ko fi wax ci ay kàddu loolu rek mooy li sabab waaw Cheikh Ibrahima Fall <coughs> xanaa lenn rek lenn rek comme kàddu yi moom dañ ko tënk kàddu yii ma lay wax ki ma ko nangoo ci no ci gémmiñam maa kii toog ñoo yem dañoo toog waxtu wu ne mu naan ñu Cheikh Ibra nee na nee na ma ci daaru Tëneeful gii bu weeru koor masaana jot daraay perkaal lay yor muy sédd xelil boppam kaasi café yi di ñu jox moo ñu wax ni Cheikh Ibra fii ci njaareem ci fanam yu mujj ci fanam yu mujj kàddu yii daan na ko wax ah doom ginaar gi dana mës a yëlbu de saa su dee yël cuuj saa su yël boo cuuj bu doon bukki for la ah xalaas bañ demee ba ca kanam gone yi dañuy wéyee sañ-sañu yoon wi te duñ jëf-jëfe yoon wi su boobaa ndab mi dab leen ah xalaas cin laa ngi ci kaw taal bi de ku xam ba mu bax waaye xam ba kat bu mel ni Ibrahima Fall de xanaa mooy jafe lii ma lay wax sama nopp moo koy nangu ci gémmiñu sëñ Saliou Niang mu ne moo ko nangu ci gémmiñu Cheikh Ibra amul wëndeelu wala taxawaalu ak xalaas doom addiya na ngeen seet ku ngeen koy jox ndax addiya koo ko jox fu mu ko sànk fa la sab xol xol di jublu sëñ Saliou Niang ni Cheikh Ibra moo leen ko dénk fii ci njaareem ci fanam ñu bokk na ci yëm leen doon wax ak xalaas sama ginnaaw maag sëñ Bamba ndaw togg gumbaak gaana gaana gi dana am yu bët waaye du am loxo yu mën a jàpp gumba gi dana am yu loxo waaye du am bët yu mën a xool nee na daan na jox ne si fan yu mujj Cheikh Ibra wax sëñ Modou Moustapha Fall mu ne ko Fall mu ne ko jàngal leen xale yi sharia ndax man sañ-sañ laa yore te sañ-sañ du wéy lam daan yàbbi di ñu wax ne ci làmmiñu Cheikh Ibra la ko la ko génne li ci gën a bari bari dégguma ñu koy wax de waaye su ko defee lañu la waxoon yow nga daal di ko ngënk rek wéeg moom rek nga xamee ne dem na di seeti Cheikh Ahmadou Bamba la seet ba nam deme it nam ñu ko nettalee ne ñu sëriñ Saliou Fall la ko ko wax bokkut ak li ma dégg ñeneen ñu di ko nettalee sëriñ Saliou ñang moo ñu wax ne sëriñ saaliyu Fall moo ko ne dafa ànd ak Cheikh Ibra ñu dem ca tool yi wàññi di ñibbisi garab ga garabug soon la waxoon na te wala garabu garabug wén ñaari garab yooyu genn lañ ci waxoon garabug soon wala garabug wén nee na Cheikh Ibra ak sëriñ Saliou Fall di noppalu ci garab gi war faa jóge agsi ci kër gi. fi ñuy ñu noppaloon sëñ Saliou Fall joxor bi genn ñaxuk sal guuf ne ko Ibrahima Fall ndax dégg nga li ñax giy wax mu ne ko lu muy wax mu ne ko ñax sal guuf gii li muy sàbbaal nee na xut boobu jamono jii feeñ na te balaa sa mbir di defaru nga seeti ko nee na foofu la Cheikh Ibra dóore gopp bi mu damm mu jël la féeteeg bopp ba foofu la teggee ne maa koy seeti wax gu ñax di wax moom ku jàng alquran wala nga jàng tasaw bu baax xam nga xam nga wa in min shay'in xam yusabbihu bihamdihi kenn laa tafqahuna tasbihum innahu kaana haliman ghafuran foofa loolu mooy li sëñ yu Fall wax wax ak maam Cheikh Ibra sama baay sëriñ seex saw nee na ma fii ci ci njaareem gii nee na tawat na fi tawat ju metti Cheikh Ibrahima waxul nañ ko yóbbu faj ko feew waaye nee na daf daf ne daf ne nañ ko yóbbu fan euh, ci weer yi passé ma nekkee kër Baye Fall fii New York am na ku ñuy wax Cheikh Seck nee na ma moom xam na foofu bu ñëwee nañ jotante téléphone mu yóbbu ma ci àll ba nee na moom buy dem seen dëkk nee na boo génnee njaari bi xaw ma fu ma na fi la sama baay mooma ne Cheikh Ibrahima dafa wax ne yóbbu leen ko ba ca àllum Ngol Njaay xaw ma fu Ngol Njaay ne fi fii la nii la nekk xaw ma war kon yow war war ngaa fexe ba wan ma foofu sama bàyyi ma ko xaw ma fuy ngol njaay nee na chef ma yóbbu ci àll bu ngol njaay nee na kooko yóbbu garabu Dakar wàcc ma fa ma defay yendu di fa fanaan man dong ci àll ba kenn du ma indi lekk duñ ma jox naan nee na maa jékki-jékki ba wér pelag waa ko ñëw jox jox loxo Cheikh rek mu ne ma seex wér nga ma ne ko waaw waaw nee na mu teg loxo ci sama ne ma da nga gudd fan de sama bàyyi dund na juróom ñett fukki at ak nangam Serigne Saliou Niang moo ñu wax ne moo ñu wax ne benn bis toog ni nii moog Cheikh Ibrahima fii ci njaareem ñu jàkkaarloo kenn doxul seen diggante mu ne cëy man de am naa ngëneel sama sama sëriñ bu tedd bii ñaari nag yu bëtam yi ñaari nag yi bëtam yi ci sama kaw rek keneen keneen séddoowu koog man nee na ma wax ko ci sama xel Cheikh Ibrahima wax ma ci làmmiñam ne ma doom loo ci juble yàlla na la ko sa borom defal. yooyu sëñ bi du jeex du xaaj bu ñu ci doon nekkoon mën nañ cee wax lu dul jeex nee na bi mu nekkee ndar. benn bis toog na nii ba yàgg mu jekk jékki dara ji fees dell ak ndox di sattati nga xam ne buñ ko wañaaree daanaka fees fees fees nëb kël la ñu ne lii lu mu doon mu ne daa am bi bu nekk ci biir géeju ndar gër gaal ga wuññi ungeeñu nara nara lab sama taalibe bu nara lab moom laa doon xettali moo waral tooyaay bi te jógewul fi mu toog bët yi bët yi fàddu wuñ ko xanaa sëñ bi ko wax kon loolu doy na ah? maanaam maanaam dara dara dara du doy nag waaye mos tuuti noonu baax na kon sëñ Moussa ñu jëbal kàddu yi salaamaaleykum wa rahmat di siyaare sëriñ si bu baax si ak kilifa yu baax yi fi nekk xamal leen ne jamono dafa xat rek nag jërë ngeen jëf gaañ yi kat na ngeen ma jéggal dañ doon sàkku euh, ab soññaate ci seen mbir mi écran bii nga xam ne ñooy ñooy filmé nii euh, seen logo bi moo nekk nii Mafatul Bichri yi yàlla dafa dogal ko ñoo xam ma jàmm moo ko créé ma nga ca Amérique état bu ñuy wax Denver Colorado boo jëlee avion ci New York jëm fa avion bi dana naaw lu man ñetti waxtu lii moom yàgg na ko yéene man invité na woo nañ ma fa ñetti at ma defi foofu conférence daf ko daan génnee ci biir internet bi muy gis ki sunu boppam ak lu mu filmé léegi nag lii ngeen di gis ne kenn nit moo koy financé boppam Sénégal na Sénégal na comme yàlla def ko ndànk def ko ndànk rek Sénégal na comme suñ borom dafa dogal néew doole gi daf fee bari télé bala nga fee mën a seetaanub télé télé juróomi junni lay doon nga gàll ci ak weñ waaye tele ku koy seetaan ci internet rek xam nga ne Sénégal dana bari ñoom du njëg ne boobu télé am na waaye télé bii àdduna bépp dañ koy seetaan fi ñu toll nii mooy Mafatul Bichri TV. taalibe nekk ca Norvège jamono yéen ñi ngi may wax waxtaan sama waxtaan yi jàllee ne ñu ngi ko fi suivre ñoom nag fan yii ci weer bi ñu génn wa ca ginnaaw defal nañ leen benn fundraising fële New York. pour nit ñi defal leen ndimbal ngir ñu mën a ñëw samp bâtiment fii comme ay Walfadjri rek ay Lamp Fall FM loolu ci la nekk nii comme yow yàlla dogal na nga xamante ak ñoom boo woo leen fii waaye kenn nit moo ko yore di ko financier boppam nga xam ne lu mu liggéey ci Amérique ci télé bi la koy def te tasaare yoonu murid rek gis nga Mafatul Bichri TV la ko tudde xam nga loolu nag ñëpp xam ko jàpp ci maanaam liggéey bu bu set la ñuy liggéey du caagee lu ñu filmer rek teg ko dañ koy segg ba xam ne lii dana sigal yoonu murid ñu soog koo teg sëñ bi kon baax na xanaa loolu nga bëggoon salaamaaleykum wa rahmatulah. do dongo dañ doon fàkku euh, euh, Karbala ca fin ba tuuti nga ñabal leen ci rek. murid yi de loolu leen fi bañee Karbala Karbala. <laughs> waaw karbalaa de Moustapha Karbala lu mel ne moom nag lu mel ne moom nag am na yu ko jiitu te bindoog moom te tiise na moom sax wala sax nag. duñ na gën koo tiis waaye lu tiisee ne moom mbaa xam nga ne ku dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du Abu Bakar ñu topp ci ginnaaw yëpp dañ leen a rey Seydina Umar ibnul Xattaab xoolal ni mu toll fukki at ci xilaafa gi nga xam ne moo dajj palais romain ya dajj pale perse ya dugal fa lislaam ba jël ñaari lami kisra solal ko suraaxatu ma ko sal alayhi la ma digoon ba mu koy dab xam nga jàng saaqu suraaxata sirran kay yëjee abi wa an yakun ajrunu miqdaaro wa amahu bi jawaadin kay yëfoo si ma yoxtaa min la suma tef gis nga Omar ibnul Xataab moom waxtu fajar kabbar bi mu naan allahu bar fekk ku ñuy wax ruus abu lu'lu'at mooy paaka ñaari boor foo ko laal rek mu gaañ la moom la fekk fi muy kàbb rek mu dëbb ko ci kol bi ñetti yoon jam-jam bi ko faat mooy jam-jam bi ñu jam ci ron jumbux bi bi ñu jëlee ndoxum ndoxum tàndarma xooj ko jox ko bi mu naanee ndox mi génn foofu docteur bi ne ko fayal say bor ya ca topp nag bul fàtte ne nag borom daraja ju màgg noonu ci lislaam fu ñu ko reyee balaa deret ja di dal téeméeri junniy bakkan dana ko fekk bu dee lum néew néew ñetti millions yi bakkan dana ko fekk deret ji balay dal gis nga Seydina Omar tamit moo dal ci la caabi ja dajj ko bakkan yi usmaan Ousmane Ibnu Affan lu ko gën a tiis te ña ko rey ñoo gën a tey kii ma nga xam ne doomu Seydina Aboubacar Sidé moo njëkk moo njëkk ñëw ñëw ñaddu ko téye ko daanaka jël catu xeej catu catu xeej bu ñëw fi ñu toll mboros ko fii ba fii dagg Ousmane Ibnu Fan tiin kaamil bi muy toll fa sa yegg fii kahumulaaw ji ci sóoratul Baqara fa lañ fa lañ ko rendee deret ji boo demoon ca kaamil ba fi ba ci kaamil ba tey deret ja ma nga ca deret Ousmane ja ma nga ca kaw aaya jooju Seydina Aliyun waxtu fajar la na hayya ala salaati hayya ila salaati ila salaa Abdullah ibnu Maljam kar ko jaasi ju ñu toog ju ñu am poisson la ko tëgg fii ci digg bopp bi ba deret ji fas fastoo ci sikkim bi Seydina Hasan mi di taawam wuutu ko jabaral lañ lañ neexal mu tooke aw ñam jox ko ko lekk mu jox ko ko mu lekk Zubayda mu it wurus wañ ko joxoon di ko ko neexale mu toog ba xolam sedd mu dem di ubbi wurus ba dem ubbi fekk wur wurus soppi ko ay unk yàlla soppi ko unk yu mu daw te dañ koo ne boo reyee Ousseynou mu awee buur dana la takk buur ne ko xalaatuma laa takk Ousseynou gis nga kon mbirum Ousseynou soog a ñëw Ousseynou nag li waral mbiram siiw gën a tee yaatu ñaara ko waral suñ mbokki chia ay moom lañ jël at mu jot di ko màggal waaye ci dëgg-dëgg ñoom it niñ koy màggale sëriñ bi loolu jaru ko yonante yi rend nañ fi ñu bari afa kullama jaakum rasul bi ma laa an ma laa tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtul yonte yàlla yaxyaa ci kaw minbar bi la nekk di jul ñu fekk ko dagg dagg bopp bi teg ko ci palaat te jigéen ju bëgg a njaaloo dong kat moo moo wax buur ne ko li may neexale ba ma ba ma nangu mooy nga reyal ma yaxya nga xam ne canu canu njaaloo daanak ci lañ reye ci lañ reye yaxya yu toll ne yontu yàlla yaxya nga xam ne sallallahu alayhi wasallam nee na ku nekk na nga taxaw ci kanamu yàlla ëllëg mu ne la mas nga maa tooñ baal naa la ko naan la ko topp ba mu des yaxya moo mus sa mooy yàlla mosu koo xalaat bakkanam biñ ko dañoo dagg boobu teg ko ci palaat waaye ba deret ji baj bajee ba ne suuf si bax nag suuf si bax rek waaye gis nga li ma la waxoon léegi téeméeri junni buxtu nasara ñëw na rendi ko ci ñoom jàpp téeméeri junni ay jaam yóbbu leen Irak dëkk ba daal di daal di ba téeméeri at gis nga ni ma la ko misaal ci ginnaaw dëkk ba soog a tàmbalee dekk dekkiwaat Ousseynou nag moom niñ ko defee dafa ñaaw ndax ñoo ko bind leetar ni ko ñëwal danañ la aar wateeg yow maanaam fal la nga nekk buur jullit mu ñëw ba agsi ñooñu ragal buur ñëpp mën ko ginnaaw dugg ci seen kër yi ñooñu ja ñooñu kar ko ndaw yi yësiit juróom-ñaar fukki nit la àndal ñoom ñëpp dañ leen a rey kenn dong lañ ca bàyyi reyuñu ko mooy ki mu tudde baayam mooy Aliyu Zeynul Abidina mooy borom borom xam-xam bu bari ba moo doon wax yaa rubba jawhara ilmin law bi bihi la qila li anta mi man yabudul hasan mi man yabudul wasana wala stahala rijalun a dami yaraw na aqbaha ma yaatuna hasana xam nga lu tere ñu rey ko euh, Ubaydullah ibnu Ziyad def ni xale bee des naa mu ne dem leen xool naq ba su amee kawari naq rek rey leen bu amagul kawari naq nag jarut rey ñu xool naq bi amul kawari naq xam nga ko mëtagul dara moo waral ñu ba fi hmm? kooka kat xoolal mboolem sët bu Seydina na am ginnaaw gi ca kooka la jóge Zeynul Abidin gis nga di ko tudd ci Tuhfatu bi Zeynul hmm? Abidin boobu moo ne moom dañ koo rey de balu fett lañ dóor ci biir jëbi ba mu dugg ci yurka gaa ñooñu sëti yonent li ñuy tedd tedd hmm? Ousseynou nag gis nga li ma la waxoon moom millions yi bakkan millions yi bakkan sabab na ñu rey leen ba mu faatoo gis nga kàddu ya nga xam ne dégg nañ ci kaw asamaan imaamul Xasaali sax joxe na misaal ne joxe na misaal ne keroog ba ñu reyee Seydina Ousseynou la yonent bi sallallahu alayhi wa dem troisième monde keroog la jóge ci ruuxam jóge ci tollu ko asamaan su njëkkee dem ñetteelu asamaan ngir mere waa àdduna mun daal sëñ bi xos fekk tey man su may àgg kaw damaa war a jàll ndakaaru te kii kon ngeen jéggal ñu ba beneen yoon xanaa nga jox kàddu ki ñeneen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërë jërë ngeen jëf